ay jërë ngeen jëfati mbokk yi xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen bu baax a baax seen plateforme bi nga xamante ne moom mooy web info TV di nuyu Idi Dem mi nga xamante ne moo nekk si cadre di ko jox wàcc waayam particulièrement les sénégalais de la diaspora maa ngi leen di char bu baax a baax a baax di leen bégee di leen jox seen wàcc waay maa ngi gis euh, message yi maa ngi siy kontaan bu baax a baax a baax alors mbokk yi tey nag foo leen gisee fi ma toog maa ngi fi nga xamante ne mooy si digg ñànkatang bi di Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie gox bi nga xamante ni euh, buñ ko tuddee rek suñu xel dina dem si ki nga xamante ni moom mooy làmb waaye suñu xel dina dem si ki nga xamante ni doomu Grand Dakar la à chaque fois saa defee analyse gars dinañ ko bàyyi xel jël xale yi dinañ ko jël daal koy dagg dugal ko si TikTok bi wala tas ko si réseaux sociaux bi ndax kàddu yi am solo yi nga xamante ne koy faral di yëkkati di def analyse yu doy waar si li nga xamante ne mooy axlu làmb di Aidara Mbacke la ñu daral ñu fas yéene waxtaanee ak moom si li nga xamante mooy actualité waaye balaa ñuy xuseet damay daal di koy jox mu daal di nuyoog mbokk yi xarit yi ñuy seetaan mon ami Aidara maa ngi lay ziar jaajëf maa ngi lay bëggee Aba le sama waa ji ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama waajur bu jigéen yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu fekk suñu njëriñ suma waajur bu góor yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ak képp koo xam ne yaa ngi maa ngi lay di nuyu sama sëriñ sama wasila maam Thierno Aydara Mbacke bu sëriñ Aydara Mbacke bu maam Thierno Ibrahima bëggee mm-hmm. di bëggee képp koo xam ne xam nga mm-hmm. yaa ngi toog di ma bëggee di ma safoo mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi toog abonné maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di bëggee tamit sama waa secteur muy NGB bébé fii laay tiitaroo mooy sama lépp mhm. waaw bu méttee fii la bu neexee fii la kon maa ngi leen di bëggee waa ñaari tali Grand Dakar mhm. biscuiterie di bëggee sama waa koñ mhm. mooy koñ bi ma fekk nii mooy koñu gaynde ko sax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo waaw fii la gaynde yi nekk <laughs> waaye man du ragal yow xam nga ne sax du ma ku juddoo koñu gaynde rek doo ragal quoi di bëggee euh, waa ko ñu ñoom ñëpp ah di jël nuyoo bi teg ko ci loxo mbay cere mbay siis mu nuyool ma ñëpp di bëggee ñoom aw Mounas création borom ñëw yu rafet yi mm-hmm. buntu këram fa laa nekk nii ñoom mère Mounas maa leen di bëggee ñoom Aji Diallo mm-hmm. ñoom jeena ba ci kaw maa ngi leen di bu baax a baax di bëggee sama booy yi mm-hmm. Mouhamed Abbas Ndey Umi maa ngi leen di bëggee ñoom Penda di bëggee sama dëkk sama dëkku maam sama dëkk yaay muy Sam Yabal waa Sam Yabal maa ngi leen di bëggee di leen ah. ñaanal jàmm oh. di leen siyaare bu baax di bëggee sëñ Abdallah Diouf sama xarit sama lépp ak sëñ Touba Pouye maa ngi leen di siyaar jaajëf Aba alors ñu ngi kontaan bu baax a baax gannaaw bu mu nuyoog mbokk yi xarit yi eh, di ko jaajëfalaat bu baax a baax a baax si disponibilité bu ñu may ngir ñu am ak moom li nga xamante mooy waxtaan waaye dañuy ñëw si actualité waaye balaa ñuy xuus ay si actualité dafa am benn tiis boo xamante wàcc na dëkk bu tedd bi di Touba nga gisandoo ñu ñëpp uh, vidéo bi taw bi nga xamante moo fa wàcc ba Touba bi yëpp daal di inondé ku tedd ki xalif général ku li murid di sëñ Muntaxa Mbàkke daal di génne million ngir ñu def uh, li war si ndox bi nga xamante ne dugg na uh, biir Touba yow tey en tant que taalibe en tant que jullit rek mbir moomu anam ban jàngat nga si am yàlla mooy dogal te tey suñu borom moo dogal loolu yëpp mm-hmm. waaw da ko ciy sant ba pare mm-hmm. waaw di masaw ñi nga xam ne mm-hmm. ah, ndox bi jot na lor seen i kër ñi nga xam ne tamit seen bakkan jot na ceen ñàkk ndax ndox bi sunu borom bi yërëm leen te xare leen àjjana ak ñi nga xam ne tamit ñi ngi daj coono ci ndox bi ndax metti na ñi ngi bokk ak yéen naqar bi di bokk ak yéen tiis bi waaw di wax ne nan gën a gëm yàlla rek yàlla suñu borom gën leen a mu may xolu muñ di sant tamit sëñ Mountakha Mbacké mhm. def na si lu rafet waaw defati na ko sax la ñuy wax suñu xalifa général kul murid ndeysaan saa yi bu ñu jaaxle mhm. mu génn gindi mhm. ñu ko ci sant ndax dégg naa def na ci benn som bëri kon gàcce ngaalaama Mbacke Balla Aïssa yàgg fi te wër kontaan nañ ci yow loolu sax saa yi bu nu jaaxle rek nga génn génn ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax mu nekk loo xam ne lu métti la tamit mm-hmm. di ko di bokk naqar bi ak waa Touba di mm-hmm. bokk tamit naqar bi mm-hmm. ak ñëpp di wax ni tamit état bi gouvernement bi autorité yi ak bonne volonté yi nañ ci gën a jàpp quoi ci gën a jàpp ndax ñooñu ndox bi yàq na seen kër am na ay miir yu ci daanu am xam ne blessé nañ ci am na ñoo xam ne tamit ñàq nañ ci seen bakkan quoi loolu moo tax macha allah kàddu yi rafet na ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax alors dañuy ñëw na vif dans le sujet li nga xamante ni moom moo nekk si toile bi euh, Aïdara Mbacke Niass saa yu ñu toog ak yow euh, sa analyse dafay am solo lépp li nga xamante ne xew na si euh, làmb wala képp koo xamante ne yaa ngi si làmb ji mu am jafe boo xamante ne dal na yow saa yoo sànni kàddu rek dana doon loo xamante ne liy defar la waaye du doon loo xamante ne du luy yàq la moo tax ñu ñu ñuy sawar di toog ak yow di waxtaan ak yow récemment gis nañu li nga xamante moom mooy Ada Fass ak ki nga xamante moom mooy Pokola jafe-jafe bi nga xamante ne moom moo leen dal kenn xamul euh, situation bi lal ana moo ko waral ba tey jii nii ñoom ñu daal di si am li nga xamante ni euh, moom mooy euh, mandat garde garde à vue tey analyse boobu noonu ki nga xamante mooy Ada Fass dal na ko à chaque fois mbi yu ni mel di ko si dal bu nekkul si agression dina ñëw si li nga xamante moom mooy xeex tey boo amoon kàddu booy analyser rek ngir ñu partager ko ak ñi seetaan la lay doon si Ada Fass. waaw déjà di masawu mbër rek. Mhm. waaw li ko dal ni kenn yéenewu ko ko. Mhm. waaw di ko masaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw comme li ma daan wax rek boo gisee tout temps rek ñu def vidéo di recadrer mbëri. Mm-hmm. waaw ñun dañoo ñëw ci làmb ñëwuñu pour yàq làmb mm-hmm. dañoo ñëw pour jàppale làmb jàppale tamit jeune espoir yi jàppale boo yi nga xam ne dañoo nekk ci yoon te war a am dara ci làmb te war a yegg fi mbëri yegg ku ci mel ñoom Arafas espoir lañ ci làmb ñoom Pokola espoir lañ ci làmb te ku ci nekk rek yaa ngi rêvé bëreur combat royal làmb du ko bëgg ak mm-hmm. làmb bañ ko mm-hmm. tey boo xoolee yàgg naa wax mm-hmm. ne mbër moytul mbër moytul xamal fi ngay teg sa tànk làmb dafa fii dafa am yoo xam ne àndut ak làmb est-ce que comprendre nga mhm. mhm. mënuma comprendre nga nekk mbër di dem ci yenn milieu mënuma comprendre nga nekk mbër di jëf yenn jëf yoo xam ne tey say supporter mhm. buñ la ko gisee la koy xeebee dëgg la ñun bu mbër bu moo ko boole ak ñun ba tax na ñun ay chroniqueur lañ dañuy analyser dañuy wax loo xam ne tey bu ñu gisee ni lii day yàqal mbër bi rek ñun dañuy ñëw waxu ne mbër bul teg fii sa tànk tegal fii sa tàmp c'est comprendre nga. bu baax moo li ko dal ni yéenewuñ ko. Mhm. yéenewuñ la mbër li la dal ni ndax champion nga. Mhm. mbër nga nag quoi mais mhm. lépp loo gisee dañ ci jëlee leçon. boo xoolee am na lu la jotoon a dal. ci ay jafe-jafe. ba nga demee mbuur noonu mhm. mais loolu waroon nga ci gën a jëlee leçon te xam ni gars yi da la bëgg mhm. boo génnee nga xam fi ngay teg sa tànk mhm. kon gën a xoolaat sa taxawaay mais Aidara est-ce que Ada Fass mi ngi xool bu baax a baax jafe-jafe yu koy dal na xam mi ngi si jëlee euh, jàngat di si defar boppam à chaque fois saa amee jafe-jafe yow boo génnee di nga ko di nga ko di nga ko sànni kàddu goo xamante ne au lieu mu jëlee si njëriñ mais du du bàyyi xel kàddu yooyu yëpp Ada dafa mel ni du bàyyi xel supporteram yi Ada entourage am à chaque fois même même tour bi ngay dégg Ada Fass bu yàggee est-ce mbir mi euh, du soof si kaw gars yi. waaw bu yàggee mooy li nga wax rek bu yàggee nit ñi da la lay jëpp sax. Mhm. ndax ñu ci bëri tey boo xoolee. benn kàddu bi leen wax mbër mm-hmm. xoolal fi ngay teg sa tànk mm-hmm. defaraatal sa taxawaay mm-hmm. chaque jour ma ne mbër da war a am gétt mbër da war am gétt Ada dafa nekk mbër boo xam ne xale la nekk phénomène biir Fass li mu am suñu borom jox ko ko léegi nag yàlla bu la joxee loolu am ñoo xam am ñoo xam ne dañuy topp sa ginnaaw bëgg la rek te yàlla tax maanaam bul def lu lay xeebee bul wax lu lay xeebee xoolal ñi nga xam ne tamit ñooy sonn ci yow yaa ngi percé yow tey da ngaa ñëw percé ak doole la ko bu la succès day wala dara mhm. tey xoolal ñi nga xam ne ñoo lay critiquer mhm. di la waxal lu baax mhm. xoolal ñi nga xam ne tey ñoom ñoo lay cadre na la mbër tegal fi sa tànk ñooñu boo leen dégloo rek amaana yenn yu bëri du leen dal boo xoolee keroog barki démb la fois passé rek demoon na ci benn soirée ba di fa xeex ma def ma def ma def maanaam lii laa ko doon bañal quoi tey boo amee tour dafa am yenn yoo xam ne nga koy moytu coow nga moytu ko bu foo xamee xeex dafa nar am wala problème dafa nar a am yow rocceekul nga daw dem sa yoon mhm. sinon sa noonu mën na ñëw andi la fa problème mhm. wala tey maanaam problème bu mujjee dal sa kaw ndax ayam du yab ay du yam ci bopp borom mhm. kon aadam moo war a xoolaat boppam rek xool tamit ñi nga xam ne ñoo koy wax dëgg comme sama genre yi ñun yéenoon ko lu bon dëgg la di ko wax rek nee naa Ada Fass muy Ada Fass di mbër yi may critiquer mbër yi may dal seen kaw yëpp mhm. man yéenewu ci kenn lu bon man képp koo xam ne yéene naa la lu bon man mhm. damaa ñëw pour jàppale làmb ñëw pour jàppale mhm. xam ne ñoo nekk ci yoon war a war am dara ci tey bëgguma gis lu leen di yàqal ma toog di ci seen bal tout le temps rek bëgg di leen jàppale à ce que su ma gisee loo xam ne lu leen lu ñaaw la su ma gisee loo xam ne da yàqal ma toog ne leen mbër defal li moytul li est-ce que comprendre nga. ndax loolu moo leen dimbale mais ah dafa waroon xool bu baax ñi nga xam ne tey ñoo koy wax ci moom lu baax. Mhm. mu jàpp ne xëy na gars yi dañ ko sous-estimé wala doon ko bañ du loolu. Mhm. gars yi ko bëggal lu baax rek bëgg mu doon champion moo waral gars yi di dal ci kawam. Mhm. loolu kese la. waaw loolu loolu am na solo mais dafa am loo xamante ne euh, waxoon na ko fi. avant muy dem si soirée waale bi ba am fa ay jafe-jafe mu ne moom dafa bëgg a bàyyi làmb. est-ce que bëggul jaar ci porox ndoll yi pour pour pour pour bàyyi làmb ndax a chaque fois mbir mi mooy répété waat tamit. non loolu man gëwuma ko. Ada Fass mu ne damay bàyyi waaye loolu wax la rek. moom làmb la yaakaar. te li mu am léegi làmb li mu koy may nii. gisuma lu ko lu ko mën a may lu ëpp pour l'instant. waaw nekk mbër xale. nga dem ba ñuy dox sa combat ak la dëgër ak ay amaseen. comprendre voilà nga xam ne nekkatoo mbër mu ndaw moom moo war a bàyyi ne aada man xale laa xale laa mhm. moom moo war a xam ne mbër bu mag la léegi mhm. cadre xale laa xale laa da ko war a jëlee teg na mhm. xool li nga xam ne moo koy mën a dimbali mu mën a lekk ci man dama ko yéene ay millions ci làmb Arafaas dama ko yéene mu lekk xaalis bëri ci làmb mm-hmm. boo gisee may dal ci koom yëpp mm-hmm. dama ko yéene parce que dama gis waa Fass ñuy sonne ci moom mm-hmm. ñoom ñuy dégg lu nekk ma xam ne kii mbër la buñ ko jàppalee dëgg dëgg dëgg Fass mën na am nga dim champion bu mel na Ada Fass kon moom bu góorgóorloo rek déglu suñu samay wax mm-hmm. lu bëri bëri bëri bëri mm-hmm. bëri quoi mm-hmm. ndax lu koy dimbali rek loo xam ne lu koy yàqal la tey boo xoolee Ada Fass bu ne cëp cëpp génn gars a bëri caaj dafa neex a bëgg ko bëgg léegi nag bu la gars yi la gars yi bëggee quoi amal ci ñoom yërmande ndax ñoom ñi ngi déglu nekk yow di sonn xam nga te joxu leen ñu lekk joxu leen ñu ñaan kon di def wala di dem foo xam ne tey gars yi da la fay xeebee loolu kese la quoi mu xoolaat boppam quoi am na solo li si li si gën a bees wala li jaaxal gars yi mooy beneen morom mbërëm di Pokola ñoo fekk si Ada Fass ba tey problème yooyu tamit daal di si daal di siy ñëw yooyu tamit eh, tey ku ne ku ne eh, eh, Ada Fass nga xool Pokola ndax làmb tamit ñoom ñaar war na leen mun a boole wala. non mais ñun suñuy maame fii ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Boy mhm. ak ñoom. mbay Gueye ñoom ñëpp doon doon bërante seen biir. Mhm. parce que làmb la. Mhm. ñoom danoo ñëw pour opter pour am xaalis ci làmb. Mhm. ñoom ñaar ñu bëre dèjà tey du leen yàqal dara. am nañ droit ne du ma ñoom ñoom ñaar duñ bëri ay gaañ ñoom loolu am nañ ci plein droit. sa comprendre mhm. mais ñoom bu ñu fàtte ni làmb moo tax ñu dugg ci ci ci ci ci ci métier bi ñoom duñu ay ennemi mhm. benn tàkku tàkkusaan moo leen di boole mhm. mais am na droit ñu lon koo def lu leen neex mais ku ci mel ni Pokola moom tamit dafa war a xoolaat taxawaayam mbër Pokola xoolaatal bu baax sa taxawaay Pokola bi ñu xamoon ak Pokola bi mel ni man dama la koy wax wute na Pokola boo xoolee non boo xoolee Pokola ba muy jógee ci combat bi passé mhm. dafa andi woon état de forme bu doy waar mhm. ñu gis ci moom lu doy waar kon Pokola waroon na ci waroon na fa jëlee leçon mhm. xam fu mu baax fu muy teg tàngam te xam ne waa Pikine doon ko bëgg sonn ci moom tey moom dafa lu bëgg ci làmb dafa bëgg lekk ay ay millions ci làmb te dafa bëgg a yegg fi ñoom Ama Baldé yegg fi ñoom Eumeu seen yegg fi ñoom Boña yegg kon am na lu bëri moom da war a jom li nga war a def mooy Pokola mooy nga dellu sa gox nga concentré wu ci sa entraînement xam ni tamit gaa yi bëgg na la te xam ni am nga komba mhm. ki ngay bëreel champion la ndaanaan la. Mhm. te dafa lu bëri la la war. dëgg fan yëpp maa gis. Mhm. li ma gis man duma la ko nëbb. dama gis yow benn baisse de form état de forme bi ma la xamee woon. moom miir dafa wàññeewu kon bi yóbbu nga concentré te sa combat bi di ñëw yàgg Talfa. à tout moment promoteur mun na jég saa rek. ne jour bi ngeen di bëri. te su boobaa lu la bett ma la. te mbër da ngay teel a pare. kon xolaatal bu baax. sa taxawaay quoi. am mm. mais ba ñu nekkee si baar bi ñu ngi am ay information euh, que ñoom ñaar bañ fa nekkee di xeex ak euh, garde garde corps bi. Mm-hmm. ak gérant bi. Euh, mm-hmm. maanaam ñoom nekkuñu woon ak seen i maanaam ñu baal ma si kàddu gi waaye dafa mel dañoo jël loo xamante ne war ñu koo jëfandikoo. non loolu moom loolu man du ma wax loo xam ne. Mm-hmm. wóorul ko du ma wax ci nit ki loo xam ne. def na lii te teguma ci sama bët. man du ma def loolu quoi. mais quoi qu'il en soit. ñoom li leen li leen warul woon mooy waruñu woon dem foofu noonu foofu noonu dem mhm. teg fa seen tànk benn mhm. ba di fa xeex mhm. parce que ñoom duñu n'importe kii ci dëkk bi ay mbër leen te dafa am lu topp seen ginnaaw te coow da leen a topp bu la leereen yow fi nga nekk nii coow dafa nar am dafa nar am wala da fa nar a wala da fa nar a andi problème bu fa toog parce que ay ay du yam ci bopp borom tey mi ngi ne Ada Fass te nañ ko te téye buñ ko téye neexul ay mbokkam neexul ay supporteram te tey am na lu bëri tey loo xam ne maanaam mi ngi xaar ci kanam te ñu ngi dama dégg naa sax maa ngi dégg ñu ngi doon jéem a dox combat mook la dëgër mhm. te mi ngi woon signé mi ngi waroon signé contrat mhm. xoolal kon loolu noonu xam nga waaw maa ko doon dégg démb rek xoolal loolu mi ngi waroon signé contrat mook la dëgër kon tey yooyu yëpp maanam boo ko bàyyoon xel amaana sax yenn yi war na la mun a jomb quoi. Mhm. kon ñoom ñaar ñoo fa waroon teg seen tànk. Mhm. ba coow di fa am ba ñu fay jël Ada Fass di ko yóbbu ci yoon. Mhm. loolu waru leen quoi. ñoo war a xam ne du n'importe qui nan xam ne ay mbër lañ. te mbër day am gétt nekkul fu la neex ngay dem. nekkul lu la neex ngay wax. nekkul fu la neex euh, fu la neex fanaan. mbër da ngay am staff boo xam ne da nga leen di war a déggal. mbër bu amul staff rek mbër boobu noonu du am carrière ci làmb. mbër bu amul staff wala mbër bu déggalul staffam rek. du yegg du sori ci làmb kon da war a yéen ñaan ñëpp laa wax da ngeen war a loolu concentré wu mm-hmm. entraîné xool li leen war tam moytu lu bëri bàyyi yenn yi mm-hmm. uh-huh. lu ñu desee si waxtu bariwul ay dara mais bu fekkee tey jii euh, ñu ko yàlla euh, euh, ñu yéex a génn tey carrière ñaari mbër yi fan fan ban gàllankoor dañ si mën a am no su boobaa dinañ ñoom dinañ yàq lu bëri mm-hmm. dinañ yàq lu bari gis nga gis nga sportif sa carrière dafa am lu dafa am lu bëri lu mu ci war a joué am na loo xam ne bu la ga bu la bu la dalee rek su boobaa mën nga am problème boo xoolee Pokola coow li buñ ko ci gaañoon mhm. fenn foo xam ne tey mun na ko yàqal dootu mënati entraîner mhm. su boobaa dina lor boppam lor ay mbokkam mhm. est ce nga tey Ada Fass bii nii ñu téye nii fi mu ne nii carrière am dina xaw a sooxe benn côté ndax mbëri dinañ ko raw entraîner te fekk ni moom mi ngi fële te dafa nekkoon si yoon gars bëgg ko kon ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp moytu bañ di def yenn yi quoi am na lu ndaw loo xam ne mun nga ko xeeb te mun na la gàllankoor sa carrière loolu moo tax ñu ne mbër da nga war a am gétt tey mun nga dem fenn xoo xam ne son noonu mun na la fa fekk mhm. def la fa loo xam ne tey su boobaa yow pour nga entraîner problème lay doon loolu moo tax na mbëri xoolaat seen bopp quoi mhm. Mhm. mais bu ñu ko jeexalee rek ay dara mbër nga doon champion naka nga war a taxawee naka nga war a mun a doxee ba nga xamante ne jafe yi du la dal mbër warul di jaabante maanaam si ay ay soirée wala boo demee si soirée dañ la fa invité non loolu sax nga baal ma xam nga soirée loolu divertissement la quoi fii ku nekk am nga droit dem soirée mais ñoom seen statut. moo leen mayul. Mhm. ñu jékki saa chaque instant di dem ay soirée wala ci mm-hmm, mm-hmm. leen mm-hmm. bu njëkk ba nekkatul Pokola bi Ada Fass bu njëkk ba nekkatul war a gën a xoolaat seen bopp xoolaat seen bopp mooy xam liñ bëgg xam liñ bëgg mooy da nga nekk mbër nekk ci gox mbooloo topp la bu la mbooloo toppee yow ñoon da nga leen fokk ndax am na ay mbër yoo xam ne ñu ngi yàgg ci làmb am ay victoire bu nekk mais amuñu mbooloo bi nga xam ne moom la ñoom Ada Fass am ak ñoom Pokola am kon mbooloo boobu noonu bu la ko yàlla joxee. Mhm. jox leen cër nga respecté leen. Mhm. respecté sa staff. Mhm. déggal leen. ñoom ñaar nekk nañ mbër boo xam ne ñoom ñaar ñoom ñaar nekk nañ ay mbër yoo xam ne. mooy li ma la wax rek waratuñ def dara. waratuñ génn. Mhm. waratunu wax dara sans pour autant seen staff mhm. accordé leen autorisation boobu mhm. noonu parce que ñoom ay mbër lañ bëgguñu loo xam tey dana di gaañ yàqal seen carrière si loolu la quoi alors kàddu yi am na solo daanaka li ñu dese si waxtu jeex na boo amoon euh, kàddu booy daanalee rek ak sant lan lay doon fii si web info tv waaw maa ngi leen di sant di sant yàlla santal yàlla bu baax sant sama sëriñ maam Thierno Aïdara Mbacke di ko ñaanal bu baax a baax gudd fan ak wér gu yaram di sant waa Daaru Muxti ñëpp di santaat sama yaay bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak gu yaram sama famille ñoom ñëpp samay doom baax a baax a baax di bu samay abonné ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen mhm. waaw di jël loxo nuyoo bi sant bi teg ko ci loxo Fernando mhm. maa ngi koy bëggee di bëggee tamit waa Web Info waaw di wax ne képp koo xam ne yaa ngi may seetaan mhm. maa ngi lay wax nga dem Euh, abon ci site bi nga xam ne moo di web info mhm. bu mag bi mhm. site bi nga xam ne actualité sport ak actualité politique ak mhm. actualité buzz lépp ci ñoom la ci ñoom ci ñoom laa koy xamee di la sant tamit waaw di la wax yow tamit na ko na la gars yi jàppale kii fierté NGB la yaa baax Aba NGB fii am na lu ne <laughs> am na joueur am na mbër am na animateur mais animateur bu mel ni yow <laughs> jot na gars yi jàppale la parce que am talent boo xam ne dafa nëbb te talent bi nëbb noonu dafa war a feeñ am na ñoo xam ne ñi ngi ci télé yi ngi ci site internet man gëm naa ne ñoom gënu laa ay gën a ah, teel a ful rek. mais yàlla baax na yow jàpp rek dina baax incha allah ngi kontaan bu baax a baax a baax si disponibilité bu ñu may ngir ñu am ak moom waxtaan waaye waxtaan bu ñu si génnee rek lu am lu amal njëriñ la kon donc di jaajëfalaat yéen ñi nga xamante ne ñuy seetaan lépp loo xamante ne xalaat la rek bàyyi leen ko si espace commentaire bi su ko defee ñun dinañ ko jël daal di si bàyyi xel bu baax a baax di leen jox nag rendez euh, chaque dimanche moom mii sa plateau bu mag ba émission lamb bu mag di jongante waaw waa nga baal waaw di sant waaw ah? di santaat bu baax ah. sama papa ji Lamine papa ji Lamine Samba maa koy ah. sant bu baax a baax a ndax tey dafa def lu rafet li mu mhm. def tey moom la ñëpp doon ñaan ajara ci télé yi ajara ci télé yi ci togg yëpp moom mu ñëw gis ma bëggal ma boppam mu gis maanaam lu rafet lu may def ba tax na mhm. xam nga mhm. yar ak teggin bi nga xam ne moom laa wone mu jël ma ñëw na ma léegi kaay nekk sama wet su ma def émission nga ñëw di toog kon loolu yombul quoi ñëpp amuñu sa fay waaw surtout sama secteur fii ngb ñëpp a kontaan ci ses ba mu na def kon yàlla na yàlla taxaw jàppale la Père Lamine Samba alors merci beaucoup les Sénégalais